dajale bésu mbégte la ci ñun boo xam ne suñu sañoon si at mi dinañ ci am bés bari yoo xamante nii dinañ ko dund ndax ku ne xam na ni Tiwaawan buñ jëmee ci gàmmu problème bi nga xamante nii moom la ñuy gën a jànkonteel avant gàmmu gi ak après gàmmu gi mooy mbalit bi nga xamante nii dina fees dëkk bi ndax benn dëkk boo xamante nii li fa nekk ci ay nit ñi ngi toll ci euh, soixante-dix mille donc euh, bu fekkente ni ay million ngi nit ñoo fay ñëw bu ñu fa bàyyee li nga xam ne moom lañ doon euh, moo doon seen jumtukaay si gàmmu gi dina nekk problème pour ñu setal ko ni ñu ko war a setalee dëgg la ñi ngi fi woon ak le programme national de gestion des déchets bi nga xamante ni ñu ngi leen sant ci accompagnement bi nga xam ni ñi ngi koy am ñu war a jël lu toll ci 4 milliards ci ay infrastructure def ko ci Tivaouane ñu ànd ak ñun si bale bi bés bu ne Sonatel nag ñëw si cadre RSE responsabilité sociale de l'entreprise ni kat ñoom dañuy ñëw jàppale Tivaouane ci seen projet bu ñu tuddee ànd defar sunu gox ñu ne nag Tivaouane ku koy jàppale période bi nga xamante nii mooy ëpp maanaam mooy ëpp solo pour nga jàppale ko mooy jamono yi gàmmu ñu ñëw nag beral ñu loxo ndaxte dëkk yu bari dañuy ñëw may leen juróom-ñaari fan ñu bale évaluer mais ñun dinañ ñëw ànd ak ñun indil ñu ay matériel yoo xamante ni nañ ko ànd ak PNGD ànd ak ñun ci bale bi juróom-ñaar ba fukki fan avant gàmm gi mais buñ ci jógee ñu ni xam nañ ni problème yi bala muy gën a tar gàmmu gi jeex kon Tiwaawan moom spécificité mooy dañuy bale avant gàmmu gi mais dañuy gën a balewaat bu gàmmu gi passé loolu nag bu ñu ko defee defelee dafa laajoon waa Tiwaawan yëpp yëg ko ma ne nag du ko def communication de masse communication interpersonnelle lañu koy def woo nit ñi muy bàjjenu gox yi di jeunes yi à travers le conseil communal de la jeunesse di ASC yi di groupement de famille di euh, gouvernement scolaire yi ñoom ñëpp ñu dajale leen jox leen xibaar bu neex boobu ci ñun ndax kat ku ñëw ni dama lay balal sa dëkk balaa gàmm bi defaloo ko kenn waa Tiwaawan nga ko defal mais ñun rek duñ leen jox duñ leen jox xibaar bi mais dañ leen di ñaan ñoom ñëpp ñu ñëw impliqué wu ci li nga xamante ni suñu mbiru bopp la mais suñu xel dal na ci ndax Tiwaawan moom su gàmmu jotee lépp loo amoon si àdduna jaral na la nga dajale ko def ko ci léegi nag du yem rek ci alal mais dañuy laaj jeunes yi tamit ñu mobiliser wu si seen doole ñëw jàppale ñu ci mbir mi nga xamante ni Sonatel jël na xaalis bu bari def ko ci ba ñu xam ne ñi ñu koy defal jar nañ ko te buñ fiy jógee ñun ñëpp ñu ànd ak satisfaction si dëkk bi set na waaye ñoom tamit ñu ànd xam ne fi ñu def seen alal ñooñu mérité nañ ko ndax jàpp nañ ci bu baax a partenaire euh, ministère gouvernance locale à travers donc unité de gestion des déchets UGC lancé phase communication ànd defar suñu gox fii ci Tivaouane ànd defar suñu gox nag benn programme bu ñu taxawal la euh, ak ministère de la gouvernance locale comme ni ma ko waxee pour dimbali communes yi pour euh, xeex euh, mbënd mi salte bi fii si fii si dëkk bi si ak gox-goxaan yi euh, nekk na programme boo xam ne liñ si séntu mooy sensibiliser ko wax ak population yi parce que ndimbal la ca fekk loxo yi borom donc ñi dëkk si gox-goxaan yi ñoom ñoo war a am ay réflexe pour dëkk bi set fii nag ci waawoon fekk nañ fi loolu dëkk bu tedd la waar fa kàllakaar wante teewul euh, dañuy yokk li nga xamante ne moom la état bi ak commune bi doon dem pour que non seulement Euh, gàmmu gi jub si nit ñi euh, fexe ba dëkk bi set mais au de la gàmmu gi ñu fexe ba à chaque fois ñu pérenniser programme yooyu dinañu indi aussi matériel lourd ak suñu partenaire UGC pour nettoyer désensabler dëkk bi indi ay poubelles aussi yu ñuy poser si euh, si euh, artère dëkk bi si zone yoo xamante ne techniciens yi wax nañ ñu ko pour vraiment euh, pérenniser ko li nag ñun Sonatel lu tax ñu koy def c'est que dañuy def programme RSE ni ñu koy tuddee si tubaab maanaam teewul ñu nekk nañu opérateur téléphone jënd jaay ay puces sax yooyu nañ ñu gën a xam waaye nag bu ñu yàlla leel ñu am ay bénéfices tubaab fa kàllaxaa ñu ñëw dellu si si askan bi bokk ko ñoom looloo tax ñu taxawal fondation looloo tax ñu def yeneen action si mbirum wér yaram si mbirum jàngale et cetera. waaw 100 millions le programme phase pilote bi mooy année bu njëkk comme ni ma ko waxee ceewoon mooy nekk. commune bu mujj ci phase pilote bi yaakaar nañ ne mooy nekk commune bu mujj waaye nag du nekk commune bu nekk ci ginnaaw ci mbiru mobilisation moo tax ñu ngi gërëm bu baax monsieur le maire ni mu mobiliser population yi tey bàjjenu gox yeex euh, ASC yi jeunes yi tout le conseil municipal taxaw na pour que daal opération yi ñuy lancé à partir de samedi prochain mu nekk réussite total donc tey dañ fi ñëw euh, fekkee euh, li nga xam ni moom la la commune de Tivaouane organisé muy journée d' information journée d' information boo xam ne dafa ànd si projet ànd defar suñu gox ànd defa so muy benn projet boo xam ni mën nañ wax partenariat public privé la bi nga xam ne état du Sénégal moo si ànd ak Sonatel dans le cadre de sa RSE pour accompagner culture locale Sénégal si Euh, wàllum cet parce que déjà état Sénégal ak commune ñoo ngi def effort bu am solo euh, aujourd'hui euh, am na déjà fii si Tivaouane UCG amoon na fi ay camion ak ay personnel boo xam ñoo ngi ànd ak maire bi di setal mais en plus de ça état Sénégal dafa taxawal benn projet d'infrastructure bu am solo boo xam ne Tivaouane dina si am lu toll lu ëpp ñeenti milliards pour que Tivaouane am ay infrastructure au normes yi nga xam ne dina mën a permettre ñu valoriser mbalit bi mais loolu doyul suñu rôle mooy que ñu yaatal uti yeneen partenaire pour la commune donc si loolu le ministère de la gouvernance locale am partenariat ak sonaatel euh, pour gën a dooleel commune yi déjà ak pour li waajal gàmmu gi euh, ñun dañ taxaw auprès de comité d'organisation pour jox leen ay moyens yi leen jox mais en plus de cela en defaçon dina ñëw yaatal euh, moyens yi pour que vraiment ñu mën a am meilleure performance parce que ñu si jublu mooy fexe ba na xam ne Tivaouane dina mën a teertu ay ganam si dëkk bu yaañu